l'actu sur King FM. Mesdames, Messieurs, euh, bonjour. Voici les brèves que nous démarrons avec l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, qui demande le rapatriement de nos très jeunes compatriotes qui euh, vivent à Wuhan. Dans une note parvenue à la rédaction King FM, le pape du Sopi invite les autorités du pays à faire avec précaution et de ne pas exposer les Sénégalais au risque du euh, coronavirus perturbations en vue dans le secteur des hydrocarbures, le syndicat des travailleurs du secteur demande à l'État d'éponger sa dette de 200 milliards de francs CFA, où ce sera donc la grève dès la semaine prochaine. Les membres ont mis sur la table d'autres revendications, Violente manifestation des pêcheurs de Saint-Louis, le président et le porte-parole de l'Union régionale des pêcheurs euh, artisanaux du Sénégal ont été placés sous euh, mandat de dépôt Makumba Dieye et Iam Dye ont été déférés au parquet hier pour avoir, euh, prononcé des messages à caractère insurrectionnel. Ainsi, le juge du deuxième cabinet d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Louis porte à 33 le nombre de personnes emprisonnées, dont 13, 12 mineurs. Sur l'international à Guinée-Bissau, le procureur euh, général de la République colo le débat sur le processus électoral du second tour de la présidentielle. Il a déclaré que le processus ne s'ouvre d'aucune irrégularité, qu'il s'est donc déroulé de la meilleure des manières. Pour la musique du jour, euh, nous vous proposons le roi du Mbalar Ndour dans son morceau intitulé Saint-Valentin pour marquer cette fête de la Saint-Valentin. Écoutons. La version Wolof de ces brèves, c'est dans un instant. yéen xibaar yi tënk lay doon dañ koy tàmbalee kon ak ki fi nekkoon jiitu réewum Sénégal ci jamono di président Abdoulaye Wade moom nag li mu bëgg moo di nguur gi fi ah, nekk di ah, gouvernement bu président Macky Sall ñu def seen kemtulaay kàttan ba jëli fukk ak ñetti étudiants ya nekk ca Wuhan ga ca Chine nee na kon waruñu leen a bàyyi ah, ñuy dal di tekk foo xam si kon jàngoro ju doy waar moo fa am rawatina kon coronavirus te ci secteur bu hydrocarbures bi jàppale ni jamono. jamono yi nu jëm boo moytuwul ay euh, jeexi jaaxa dina fa daal am sabab li moo di kon ña fay daal di euh, li ñu bëgg moo di nguur gi euh, daal di dindi wala sax fay borop ñaari téeméeri milliards ci xaalis CFA bi nga xam si dañ leen a yore la nee tamit am na yeneen mbir yoo xam si faaw ñu daal di koy lijjanti lu ko mooy kon ayu bés bii di ñëw dinañ dem ci ab grève coow lu metti li xewoon fële ca Ndar te nappkat yi doon ko fa amal loolu nag tax na ba président ak yore kaddu union régionale des pêcheurs artisanaux du di jàpp leen mandat de dépôt Macoumba Dieye ak Iam Dieye la ñuy daal di wuyoo démb lañu leen defeere ca parke ba Euh, loolu nag euh, daal di euh, tekki ni juge bu deuxième cabinet bu instruction bu tribunal grande instance bu Saint-Louis daal di nay yokk ñanu tegoon loxo ba mu toll ci fanweer ak ñett fukk yaak ñaar nag ay tuut tànk lañu di ay mineur xibaar yi ci biti réew Guinée Bissau jàppale ni kon procureur général de la république jeexal na kon coow li fa amoon jëm ci ñaareelu tour bi ñu fa doon amal nee na kon lépp jaar na yoon te kon mbir la moo xam si amul benn jeexi jaaxa bu ca am musique la ñuy jeexalee tënku xibaar yi tey la Saint-Valentin tax ñu andi leen woyu Youssou Ndour bi mu 31 ñu teewlu. ñu noon mbokk yi li tënk la woon ci ay xibaar yeneen tënku xibaar 8h30 lay doon léegi léegi Al Ndiaye kon mooy wéyal Morning King. merci beaucoup Saliou euh, bonne fête de Saint-Valentin avec ta Valentine. merci <laughs> voilà et puis euh, c'était l'information mesdames et messieurs sur King FM et après juste ben xibaar bu neex pour yéen.